Euh, monsieur Yamadou. Euh, bon comme moom ni mu ko waxee en fait yow mi nga xamante ne xam nga papaam au delà de aspect politique bi. même moom ñëpp xam nañu daf doon faral di waxam dafa dëgër et puis waxam il est incompris en quelque sorte en fait. Mhm. d'une part mais est-ce que yéen a ngi doon xaar situation bii ni mu dund ko. ben oui ñu ngi ko doon xaar. Mhm. ñu ko doon xaar commissaire Keita bi ñu ko jàppee ba signifier ko ni que mandat de dépôt lañ ko def mais je parle sous le de l'avocat Maître Diagne, et de celui qui lui a signifié ça, le magistrat qui lui a signifié, il a dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pour moi, il m'a dit de manière ouverte que ça aurait été vraiment trop euh, dévalorisant que moom avec tout ce qu'il représente dans ce pays, avec son cursus, son passé, les, les, les, les risques qu'il a pris et tout, nous ko pour ba un week daal di ko xam ni deful dara ñu bàyyi ko mu demaat quoi xam nga loolu moom day jàpp ni fontoo ko la quoi xam nga. Mm-hmm. donc moo tax bi ñu ko waxee loolu mu ni un un homme politique averti responsable il a dit alhamdulilah rabbil alamin bu doon mën la aussi noonu laay def la même chose laay def. Mm-hmm. un homme politique quelqu'un s'engage dans la politique mais il doit s'attendre à tout moment su fekkee ni dafa am affaire ak ay nit ñoo xam ni ce ne sont pas réellement des démocrates. li ñuy wax gëmuñu ko en réalité c'est des gens yoo xam ni dañ ko dañu jël benn mbubb soloon ko mais aujourd'hui benn masque bu ñu takkoon ci seen kanam wane démocratie wane bëgg askan wane bëgg dajale Sénégal. est-ce que nekkul peut moom moo xëy na dugg ci benn. ci du tout duggul ci non ñoom mënuñu piéger commissaire Keita moo leen ëpp expérience mille fois mënuñu ko piéger c'est impossible c'est en fait il a assumé ses responsabilité ses droits, il, il, en a, il en a usé que la Constitution du Sénégal lui confère. mooy wax la liberté d'opinion. il a dit ce qu'il pensait. il n'a diffamé tout le monde sait que le commissaire n'a diffamé personne. tout le monde sait que le commissaire Keïta n'a euh, diffusé aucune fausse nouvelle. ça moom c'est absolument certain. et nous sommes très dañuy yàkkamti. ci kàttanu yàlla. Mhm. ñu dem ci procès. ba ñu taxaw. wax ñu exactement ak quel niveau la defe diffusion de fausse nouvelle parce que là lu ñu wax li mu wax man wax naa ko keneen wax naa ko wax na ko su fekkee ni loolu ñu wax ni Sonko ak Diomaye dañu amoon dañu amoon risque dañu am problème ba di xuloo wala ba di waajee am histoire seen diggante loolu lu ñaaw la et lu lu la c'est ce qu'il a dit moi je le dis tout le monde l'a dit su fekkee loolu am na loolu sii la c'est le conditionnel. donc am na lu nga xam ni waxuloo ko. Mm-hmm. wax nañ ko une semaine avant moom mu koy jël di ko commenter. Mm-hmm. di mag am presque soixante dix ans passé. mais est-ce que nekkul peut-être en quelque sorte commentaire bi si def moo. mu xëy mais mais boobu moom en tant que homme politique. dafa am droit def commentaire boobu la commentaire est libre. vous êtes journaliste xam nga mm-hmm. loolu. le commentaire est libre chaque citoyen a la. xam nga lan nga mënul def. saaga président wala nga jàll ka baat wax ka naka sudul noonu wax ci moom wax ci lu nga xam ni daf koy voilà daf koy toucher moom personnellement mais dans sa la gestion de ce que les gens lui ont ñun dañ ci am droit de regard. joxuñu buur faluñu buur faruñu Damel du Kayor faruñu Daaw Demba faruñu Lat Joor wala keneen on a élu un président de la République. qui au service de la nation en principe. et la nation le le le les gens qui composent cette nation ont un droit de regard dañu am responsabilité wu di saytu li muy def su baaxee ñu wax ko su bonee aussi ñu taxaw ne lii du yoon. mais est-ce que nekkul fiabilité information bi mm, nit ñi mën nañ ci mën nañ ci poser question que ni information wérul ñi ni wér na ñi ni wérul. Ah. est-ce moom war na commander ci information boo xamante ni. voilà am am na ci droit. kenn même bu fekkee leerul en fait. gis nga. même si l'information n'est pas avérée quelqu'un qui di su fekkee ni loolu am na précaution bi ka yoon may jël na ko utiliser na ko parce que loolu ku jàng xam nga ni yoon moo la may par exemple genre yu demee noonu nga nuancé wax ni loolu bu fekkee ni am na c'est comme si moo xamoon si c'était cette information était avérée xam nga loolu yow jël nga maanaam euh, am nga kaaraange bu nga xam ne yoon moo la ko may ci loolu. beneen affaire bi gën a grave mooy par exemple ñu wax ni euh, dafa def offense au chef de l' xam nga bu ñu ko téyee mënuñu prouver loolu mënu woyef na woyef boo xam ni mënuñu ko ci tej diffusion de fausse nouvelle li ñu mën a def rek pour mën a créer pour mën ko téye mooy ñu in créer loolu daal di ni offense au chef de l' mais loolu nag aussi du ci réewu yoon la ñu nekk. que nous, nous faisons confiance à notre justice, contrairement à ces gens qui n'ont jamais fait confiance à cette justice, qui ont toujours dit que cette justice était une justice dévoyée, une justice partisane. Mais nous, nous croyons qu'effectivement, si on... Parce que le juge d'instruction, Bikoté, yoon moo ko may euh, mu bu fekkee ni offense au chef de l'État dafa am mu téye nit ki mu dem instruction parce que accusation boobu moom mooy une accusation fallacieuse c'est une accusation qui ne tient véritablement. donc euh, comme ni mu ko waxee. son son père c'est un c'est démocrate. dans sa famille man ma moi-même dans ma famille. Mhm. mon fils aîné il n'est pas avec euh, Macky Sall il n'a jamais été avec Macky mais dañuy toog añandoo reerandoo waxtaanandoo. nous sommes des démocrates. nit ki loo ko jur jur jur sax mën ngeen bokk ay idée seen idée mën na safaanoo. mu xalaate nii nga xalaate na le mais kooku c'est pour des démocrates. moom Ousmane Sonko. ak le président Diomaye nekk nañ fi dans l'opposition ce qu'ils ont dit dans ce pays aucun d'entre nous xelam xalaatul muy wax loolu un chef d'État wala des magistrats donc ñoom ils sont très mal placés pour parler pour user de l'article 80 ñoom li ñu waroon def rek mooy ñëw jël article vingt boobu mm-hmm. abrogé ko dans le sa Guy Marius Sagna loolu la waxoon en fait. mais Guy Guy Marius à sa décharge. Mm-hmm. je dis que à sa à la décharge de Guy Marius Sagna je ne suis pas avec lui. Mm-hmm. ay méthode am neexuma. Mm-hmm. et tout et mais à sa décharge lui au moins. jusqu'à présent il défend ça. c'est le seul qui aujourd'hui bon bien sûr avec les Alioune Tine ak les Seydi Gassama que nous remercions de passage Seydi Gassama. qui nous a donné l'opportunité de tenir un point de presse dans les locaux de Amnesty International. Ouais. Ce qui montre qu'effectivement, même Seydi Gassama, il n'est pas ouais, absolument. Euh, euh voilà, il contre mm. l'embastillement de, M. Keita. Mais, euh, bon, paa bi bi ñu ko parce que su ma juumul dañ ko njëkkoon téye après ñu bàyyi ko mu ñibbi. Mm-hmm. après beneen bi ñu ñu ñu ko. ci fay ñu koy toppee diffusion de fausses nouvelles offense au chef de l'État est-ce que jàppal nga ni dinañ ko ci yóbbu mandat dépôt voilà. waru am. Hmm. waroo am parce que njëkkoon nañ ko convoqué il est parti tout bonnement parce que hmm. comme je je je l'ai dit tantôt Sampapa c'est un commissaire de police de classe exceptionnelle donc hmm. xam na comment ça se buy wax tamit day xam lu muy wax donc euh, ñu dem woolu ko tout bonnement il est parti dem wuyu